waaw Gourgon mar Kaolack waaw marché central Kaolack mu ngi nii lakk de waaw lakk gaa ngi nii ay boori minuit daal minuit trente ci la commencé lakk mu ne nii waaye sapeur bu bi mënuñ ci dara gis nga ne suñ place tàkk na ba jeex gis nga ko nii gis nga ko nii suñ place yi def ni ay boori minu la lak gi gis nga ko ni sapeur boobu ñu mën ci dara Hussein gis nga ko ni lak marché central ko Kaolack moy lak ni côté fëgg jaay bi nag moo fi gëna fitti mom moom place fëgg jaay bi mom dara dara dess bi mom fëgg jaay mom dafa lak ba jeex tak tak tak tak fëgg jaay moom ben ben ben place moom desu bi moom waaw gis nga ko nii fini ne minuit jotna na une heure une heure du matin minuit une heure gis nga ko ni nii sapeur mënatu ci dara ëpp nako dole man def ni amna fi ñetti place way ben mor sa génnewu ma ko lépp lakk na ba jeex way nak loolu la yalla dogal yalla mom lu mu def ci jaam rek loolu dafa gën ana sant yalla rek alhamdullilah rabbil alamin mom lañu wax alhamdullilah rabbil alamin alhamdullilah rabbil alamin lañu wax